asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen jëwriñu kër gi ñoom suñu laa waxee rek ñoo ngi leen nuyu si jë turu jëwriñu suñ borom taal ji suñ di joxe kàddu yoo xam ne nag léegi rek jot rek mu baatu ndigalati suñ tuwaa si amoo doon taxaw yéen si tuwaay daa yéen ci yéen si Seer Faal di si Jëm Faal nu ñaan suñu moom doolu seen loolu yàgg seen dund te doolu seen wér wax ni dafa bëggoon àgg ci ji yéen di seen tey jii ci ñetti waxtu ci bëccëg dafa soxla njabootu suñu tuwaay gi ñuy jëriñ jëriñ jëriñ yoon wi taalibe suñu tuwaay la soxla taalibe bu tuwaay nag kenn mucc moom loolu ndawi sëñ bi reyante woon nag suñu mag bi nag daa ni daa fekkoon président Macky Sall waa fi ñëw ah moom dogal nag mu bëgg a kon tax taxaay muy benn xanaa li muy yittewoo ñaaw su su suñu yittewoon loolu itam suñu dikk ñoo koy teerul mu faral def benn taxaay kon ku jot ci kàddu yi nga jot li ko sa morom rek ko ko ko ko mën a rek. waaw taalibe Sëriñ Tuubaa la soxla moom taalibe Sëriñ Tuubaa ko xam yaakaar naa dana yaatu lool ndax daa wax ne taalibe Sëriñ Tuubaa la sëñ bi soxla nag sëñ bi dafa yaakaar ne sax day xam yow seen faat yi waaye taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp la kon mooy xanaa jéem yi kon lu jublu ak ak ku nangoo doon loolu rek sëñ bi doon nan nañ ko jotli nag nu ñaan ki ñu ko jotli loo yàlla gën a yàgg yàlla gën a wér yéen ñu ko jotli yàlla ngeen gën a yàgg yàlla ngeen gën a wér maximum help maximum soin kàddu yaa ngi woowu asalaamaaleykum taala wa